gan gi madame Hélène ni nga ko waxee ana ñu lay gërëm euh, ñu ngi lay nuyu honorable maa lay fay Fatou am mbégte baaxantal euh, ñi leen di déglu yëpp mm-hmm, jërëjëf euh, Sénégal ak bitim réew ak ci rajo bi ak internet bi yëpp ak mm-hmm. équipe bu réew mi FM yëpp jërëjëf honorable ma ñu am mbégte baaxantal ndax heure bi daaw ñi ngi ak yow di waxtaane actualité rawatina ak mbirum jigéen ñi alors ñu dooree waxtaanu tey wi ak élection législative yi fanweeri fan ak benn weeru juillet bi ñu dëkmal lañu ko jàpp subvention bi itam jàpp nañu ko ci fukki million ak juróom euh, dolli ci parenage bi ndax am ngay tiitaange ci organisation yooyee élection wala la nga gis ca local ya tax na saw xel dal waaw jërëjëf Fatou euh, maa ngi euh, ndokkale jigéenu Sénégal yëpp ndax mm-hmm. ëllëg le huit mars mm-hmm. ndax ci nasaraan bi mujj dama ko mujjee mm-hmm. di kontaan ci li ngeen ma invité ñu koy baaxantal daaw sept mars naga nii maa nekkoon seen invité matinal ñu ñaan yàlla suñu borom may ñu ñu fekkewaat koy at yu bëree bëree bëri te defal ñu si jàmm euh, maintenant si législative yi li nga wax hmm. euh, dëgg la egsi na ba pare parce que nee nañ 31 juillet la hmm. gis nañ ne ministre bi yónnee na benn euh, donc bataaxel buy wax ne caution bi fukki million ak juróom la hmm. loolu nag suñu waxee li commentaire mooy proposition boobu nga xam ne moom la majorité bi mooy ñi doon teewal ñu nekk ci nguur gi yóbbu woon ca ndaje ba moom la moom la moom la lewal mhm. te loolu dama xalaat ne war nañ ko xoolaat ndax su fekkee dañuy woote opposition bi ne juróomi million ñoom ñu ni fukk ak juróom mhm. ah moom ministre bi waroon na ko ñëw xool def ko si euh, fukk muy mu xaaj yëf yi Mm-hmm. mais su fekkee saa yooyu wootee da ngay woote nii parce que da nga bëgg wone ne yaa ngi oote démocratie te lii sa li li nguur gi li li ñu ànd ak nguur gi di indi rek moom ngay moom ngay daganal mm-hmm. dafay daal di xejamal mbir mi te seetlu nañ ko ci lu bëri seetlu nañ ko si euh, si par exemple li ñuy wax bulletin unique bi bi ñuy def dialogue bi ak yeneen question yi ndax bulletin unique bi pour man dafa nekk lu am solo. Mm-hmm. te maa ngi lancé un appel au président Macky Sall mu def ay jéego sur le plan démocratique. Mm-hmm. ni ko ay ji ay naatangoom yu jiitu defee woon pour ñu xool bulletin unique naka lañ koy tegee Sénégal mm-hmm. parce que nag mënuñu réew yi ñu wër yëpp di ko def te ñun ñu fexe ba yegg ci. leneen li su amee ay njàkkare mooy jëm ci maanaam euh, li ñuy wax euh, parrainage bi. parrainage bi nag xam nga ne attaqué woon nañ ko si euh, euh, maanaam euh, institution yi nga xam ne mooy cour la CEDEAO hmm. ba mu wax ni que dañ ko war a dindi dindi nañ ko si local yi man yaakaar naa ne dañ ko war a dindi si législative yi parce que su fekkee ne législatives locales yi ñu passé dégguñu ay xat-xat ak ay complainte ñu ngi ndokkale ñëpp ñi nga xam ne dem nañ si am si ay cër ak naat ñi nga xam ne ñu ngi ci conseil municipaux yi war a taxawu seeni askan hmm. waaye déggu leen lendemain local yi moo am ay xat-xat ba ñu am ay contentieux yu mag hmm. ci naan fichier bi wala doxalin bi wala lii donc tey ñu ngi ciy ndokkale ministère de l'intérieur parce que wax dëgg yàlla ñun nag ku koo xam ne liggéey ngalu kenn duutul baaraam dinañ la ndokkale dinañ la wax ni que euh, nga gën a jëm ca kanam. parce que mm-hmm. loolu mooy intérêt réew mi. mais su su parenage bi duggee ragal naa ne xat-xat ya ñu amoon ca présidentielle ba ba wax ja tulleeg male ba ñu choisir juróom. Mm-hmm. xeex sax am na conseil constitutionnel ma waroon xool ndax parenage bi jaar na yoon. Mm-hmm. bi yoon euh, euh, instance bi war a vérifier parenage bi ak délai yu tuuti yi ñu am. ak ak ak ak ak euh, euh, contexte économique bu metti bii nga xam ne ñu ngi génn ci Covid dugg ci benn crise inter euh, mondiale moo mm. xam ne que ñëpp xam nañ li koy li koy li ko li ko li ko wund mm. mooy mooy mooy mooy mooy la xew ca ca ca ca ca ca ca ca Europe Ukraine mm-hmm. tey tey jii waaw mooy mooy waa mm-hmm. Ukraine ak Union soviétique dafa xew nara impacté économie monde bi yëpp yokk ci li fi Covid bi bàyyi bàyyi ak li fi Covid bi ba boo bëggee def parrainage nit ñi mm-hmm. dëkk ci campagne électorale génn ci campagne locale war a dem defi campagne de parrainage ndax di nga dem levée ji ñu ngi wax ay dégg ay lu mat ay euh, euh, euh, trente cinq mille xaw ma ñaata. xaw ma ñu ngi xaar daal ministre de l' intérieur dëggal wax ñaata signature la nit ñi di wuti. Mm. waaye loolu campagne la boo ca nga campagne législative. waa nag Fatou à ce rythme-là Sénégal d'abord euh, euh, euh, ressources financières yi ñuy jël di dugal ca loola di dinañ ko seeti dinañ xam ne dina metti trop surtout si ñi nga xam ne wax dëgg yàlla seen engagement politique gëm ak yéene seen réew rek moo leen tax a jóg waaye itam dañuy maanaam nasaxal lu bëri si réew mi ndax war nañ jël suñu doole def ko ci yeneen xalaat yu yu ñuy tax a euh, faire face à cette situation là que mm. toog rek di wër di campagne mm. donc maa ngi maa ngi xalaat naa ne te am naa yaakaar ne suñu suñu war nañu xoolaat parrainage boobu mm. euh, euh, bi ñu ñëwee ba indi quinze millions nga xam ne ba léegi lu ndaw parce que nag waruñu am lu ñuy wax démocratie censitaire mooy borom alal rek ndax borom alal yi su boobaa ñooy mën fay caution ñooy mën a defi campagne pour signer signature ñooy mën a defi campagne pour législative te wax dëgg yàlla loolu foog naa ne ay ay mën na indi gàllankoor yu mag ci législative yi nga xam ne ca lañ jëm euh, te ñu ngi woo nag nguur gi mu xoolaat bu baax mbir yooyu ñu ngi ñu ngi yaakaar ne euh, dinañu xoolaat ndaxte tey caution sax nekkatul frein mm. gis ngeen locale yi li fi nekk mm. dañoo indi nañ caution bu am doole lu mosul am mm. waaye teewul ba tey la liste yi gënoon a yokk day bokk nañ waaw kon nag mhm. nañu xoolaat mbir bi daal ñu renforcer démocratie bi. Mhm. ñu def ci ay jéego moo gën ñuy jéem a euh, indi ay yoo xam ne dina dina nasaxal euh, maanaam démocratie. Mhm. ñu baral jéego yi honorable waxtu waa ñu tàmbalee dap euh, ñu wax ci jigéen ñi ak législative yi di ñëw ban taxawaay la ñu ciy war a taxaw bu ñu jàngatee la weesu ci élection locale yi. waaw ñu ngi euh, rafetlu déjà euh, taxawaay jigéen ñi ci local yi. Mm-hmm. campagne bu mag def nañ ko ci maa ngi ciy sargal bu baax professeur Sar Patar Sow ak euh, kuréelu jigéen ñi nga xam ne yëpp ñun moom la ñu àndaloon di ci def ay jéego muy maanaam programme WPP. Mm-hmm. mooy Women Political Participation. ak na mu tuddati caucus des femmes. Euh, ñu taxaw ci ba tey ñu mën a def ay jéego yu mag loi bu bees ñëw buy tabb maire yi ci euh, ci ci ci ci ci élection yi directement ñu dem ci ba am ci lu ëpp cent cinquante candidats yoo xam ne lu mosuta am <clears throat> jéego yu mag ñu def ko ci ba ñëpp di ko saluer kon nag mënuñu lu dul wax ne dañoo war a continuer si yoon boobu ci législative yi euh, liy changé nag mooy ni parité bi boo dafay nekk de fait ndax loi bi moo ko imposé depuis deux mille dix mm-hmm. dina nekk maanaam troisième législature bi nga xam ne bu ñu ci yàlla mayee ñu dem ci ak jàmm dinañ appliquer la loi sur la parité bu ñu passé douzième treizième quatrième bi ñu jëm ni incha allah mu ñu war a para kii parité bi parité bi appliqué wu si liste yi donc kenn munu si dara mais nag li ñu bëgg ak li ñu xalaat jigéen ñi mooy tey jii yan xar kanam la ñuy yóbbu foofu ndax yéen xam ngeen ne pencum ndaw réew ma nekk na penc moo xam ne tey jii hmm. sooxe na ci lu bëri euh, depuis douzième ba ñu nekkoon ak treizième bii moom foofu la raay bi téenee ak scandale yi <laughs> tey nag jigéen ñi dañ doon wax ne ñoom ñoo indi woon sooxe yooyu waaye gis ngeen scandale ya xew ci treisième bi yëpp hmm. ak la xewoon ca douzième ba déggu leen si benn député bu jigéen te loolu tamit dañ koy wax. Hmm. <laughs> parce que mën naa ne <laughs> lu ñu war a la parce que dañuy duut baaraam naan euh, euh, euh, penc ma assemblée ba lii moo tax mu sooxe. Hmm. kon di ko sooxe te ñoom yëpp ñoom ñoo ko def. du parité bi de du parité bi waaw <laughs> waaw de waaye nag du tee ba ñun ñu gën a bëgg tey ñu gën a quarité karité parité boo xam ne dina tax. Euh, dina gën a jëmmal taxawaayu jigéen ñi mm. euh, euh, ci niñ ko amee partout ñoo am qualité représentation qualité qualité à l'Assemblée nationale mm. loolu loolu Sénégal def ko soxla te loolu nag comme <clears throat> comme léegi tey choix yi tey coalition yi ñoo ko nar a def mm. war nañu mën a ànd ak femmes yi nekk yëpp ci coalition yi ñu taxaw ba nga xam ne ñu fexe ba lay sooxe ca penc ma faatu mhm. jigéen ñi bokk ci li koy saafara mhm. mooy ci seeni taxawaay te am nañ ne penc mi ñuy ñaan te ñu bëgg mu am mhm. mooy assemblée boo xam ne tey soo suñ sañoon mu am fa maanaam euh, lu ñuy wax cohabitation pourquoi pas ndax dina yokk doole démocratie waaw waaw dina yokk doole démocratie sénégalaise te su boobaa jigéen ñi nag nga xam ne ñoom Euh, gis nañ seen taxawaay ci wàll bu bëri soo gisee kuréel bu mel ni suñu kuréel boobu hmm. nga xam ne jigéen ñaa ngi jógee ko ci parti bu ne mën hmm. naa ne ñu ngi fay def cohabitation hmm. ngi fay def cohabitation déjà boo xam ne di ànd rien que pour leadership bu jigéen ñi ak intérêt Sénégal te feeñul ci ne kii fii la far ak kële ca fara far moo tax jigéen ne ñuy war a dem ca penc ma ëllëg ñuy waajal nekk na xar kanam yu ñu bëgg yu am solo yoo xam ne dinañu gën a jëmmal maanaam parité bi ak taxawaayu jigéen ñi ci réew mi loolu enjeu bu mag la mhm. dinañ ci liggéey ñu bëgg aussi ñu jéem a xool nu ñuy def ba élection yooyu jigéen ñi buñ cay dem tamit nañ xool li ma doon wax sànq rek mhm. mooy costion bi taxaw na ba pare waaye nañu xool pare parrainage alors ñu jeexal ak euh, ëllëg euh, la ñuy màggal wi mars jigéen ñi war a waxtaan war a waxtaane itam yu bari tey lan nga yaakaar ni moo gën a doon euh, wareef lu gën a jàmp ci li war jigéen ñi bu ñu gisee jafe-jafe yi nga xam ne yëpp askan yi ak famille yi njaboot yi ñu ngi koy jànkonteel ñu ngi ndokkeelaat bu baax jigéen ñi ñëpp ci mm-hmm. bés boobu mën naa ne sax weer wi moo moo nekk léegi weer wu ñu jagleel jigéen di rafetlu aussi xalaat yu ak euh, jéego yi ñuy def ci wàllu xalaat ak jëmmal taxawaay jigéen ni bu njëkk ba dañu ñëw rek ne fête de la mhm. waaye mbir mi euh, euh, dootul fête mooy taxaw nuñ koy waxatee évaluation la xool taxawaay jigéen ñi mhm. comme nu ñuy waxee évaluation si si natt waaw natt xayma waaw dañ di natt taxawaay yu mhm. jigéen ñi ak seeni jéego yi ñu war a def te ñu ngi ciy sargal organisation yëpp tey nag ñun gis nañ ne lu gën a bëri te ñu ngi koy waxtaane muy auto autonomisation des femmes maanaam nu ñuy def ba jigéen ñi euh, mën a mën a jot ci li xam ne mooy tax ba ñoom ñu mën a indi seen wàll ci développement réew mi mm-hmm. nu ñuy def ba accès mënal seen bopp daal nu ñuy def ba mënal seen bopp jot ci ressources yi mm-hmm. ndaxte xam nañ ne ñoom gàllankoor yi bëri na tey boo waxee suuf si doo dégg fii benn jigéen bu ñu fi jox hectare yu bëri yi indi xeex yëpp du ngeen si dégg benn jigéen bu ñu ko jox. Mhm. Euh, waxatumaak euh, yu gën a tuuti loola ressources yi am na ay programmes yu koy wax waaye programme yi ba léegi. Mhm. seen résultat des na sur le terrain faatu. Mhm. autonomisation bi. nu ñuy def ba jigéen ñi mën a nekk des partenaires à part entière dans le développement économique de ce pays là. loolu lu défi bu mag la am na ay jeunes yu ñuy gis ñu def ay jéego yu mag. nañ leen wone en modèle mën a def tâche d'huile lu jëm ci violence yi tamit nekk na aussi le défi bu mag a mag soo doo yeewu te doo dégg fitnaal yu ñuy fitnaal jigéen ci hmm. contexte nag économique bi hmm. post covid bi ak ak crise mondiale bi hmm. fitnaal yi soo moytul dana gën a metti donc war nañ gën a taxaw maa ngi ciy encouragé organisation yi ci xeex yëpp ñi mel ni femme juriste yi ak ñeneen question de droit yi wax naa ko question droit yi am nañ ci ay jéego waaye lu bëri des na faatu. Hmm. war nañ ci mën a gën a taxaw. mais je pense que euh, tey jii lépp lu jëm ci violence lépp lu jëm ci autonomisation hmm. lépp lu jëm ci question wu nu ñuy gën a renforcer droit wu jigéen ñi hmm. tey war nañ cee gën a taxaw euh, violence yi nag maa ngi ci oo bu baax collectivité locale yi ñu mën ñoomi tamit am ay levier ay maanaam lu ñuy teg ci ci collectivités yi ci gox yi. Mhm. pour gunge jigéen ñi. gis naa ci exemple en Allemagne boo xam ne collectivités yi dañ ci jongante sax ba ñu ci euh, mën a jëmmal ñi nga xam ne ñoo ciy def ay mhm. jéego yu mag a mag. te maa ngi jaxlaat naa ne war nañ ci dem ñun ñu ngi fii Thiès bokk ci ville bi. Mhm. ak bokk ci commune Thiès Nord nañu xool naka lañ mën a peut-être enclencher même réflexion bi. Mhm. ba ñu mën a gunge jigéen ñi nga xam ne elles sont victimes de violence dans nos dans nos dans nos localités. jërëjëf honorable Hélène Tine ñu lay gërëm bu baax a baax di nuyu ñi ñuy dégloo foofa ci Thiès yëpp di am mbégte saa su ne dalal la jërëjëf yow yaay coordonnatrice M7 mouvement pour un Sénégal d'éthique de travail euh, bi ñu dëkkmal euh, bokk nga ci. jigéeni jàmbaar yi Sénégal mën a ndamoo jërëjëf ñu yendoog jàmm Hélène Tine